برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به أصلي وأسلم على سيد الكونين والثقلين والفريقين من الغرب والعجم وعلى آله الأتقياء وصحابته الأسرياء وعلى التابعين الفدلاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكجلني أنا أقول سنتي الله ñu الأعلى والأسفل شقي malay ala def na ko ci kaw ak xéewal yi nga xam ne def na ko ci suuf ñu ne xéewal kaw gi mooy asamaan si nga xam ne yàlla def na ko mu nekk tànt ñeel ay jaamam léegoo léegi ci dooleem ak ci kattanam mu wàcce la ndox mu daanu ci xéewal koo xam ne ci suuf la ko def mooy suuf si nga ji yàlla saxal ko mu génn la meññet nga lekk nga def ci sellal tëdd ci ba pare di ci dox te dara yëngatuwul ñu ne ñaari xéewal yu mag a ngi noonu yoo xam ne doomu aadama bi bu ci xoolee dana xam ne yàlla mi def loolu dëgg-dëgg moom war a jaamu waaye yàlla mi ne may xéewal yooyu boo santee keneen yow juum nga seede ne yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ba pare tànn ko yàlla wàcc alquran ne tànn naa yonent yi def leen ñu am ay daraja seen diggante tilka rasulu faddal naa baadum ala baad waaye ñoom ñëpp nag ki nga xam ne moom laa jox mu nekk chef ñeel mboolem yonent yi mooy sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tëjee ko ambiyaaw yi ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyin ñu jul ci sang boobu ak i saxaabaam ak i taabiina yi ak i taabii taabiina yi ba bés penc ñu nekk ci weer wu màgg muy shahr safar jëm ci weer wu màgg mooy rabiul awal weer woowu nga xam ne ci la yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi indi maanu mi indi teraanga mi indi nit ki xam ne doomu aadama yàlla daf ko màggal ci weer woowu la gën a àdduna ñu ànd ak yéen ba léegi ci tafsirul quran ci suratul baqara waxoon nañ ne yàlla tàmmin tàmbali na kaamin ci suratul fatiha yépp nekk muhkama mu indi commencement baqara mutashabe ñu nangu ko mu leeral ñi gëm leeral ñi weddi leeral naafiq yi bi mu paree nag moom borom bi subhaanahu wa taala mu yëkkati kàddu nag ne yaa yoon naasu eyeen nit ñi yaa yoon naasu eyeen waa Makka ak li war Makka ak adduna bi yépp ubudu rabbakum jaamu leen seen borom mu mel nii mi ngi tontu ñi nga xam ne dañ doon jaamu leneen lu dul yàlla ndax Màkka looloo ko saxoon jël benn xeer desene ko teg ko ci sa kër wala nga jël benn xànq desene ko teg ko ci sa kër di ko jaamu yàlla nag bëgg wax ak ñoom ne leen bàyyi leen loolu waaye u'budu rabbakum jaamu leen ki nga xam ne moom moo leen bind te ngeen ko ndax yàlla bi mu waxee waa Màkka ne leen jaamu leen ki bind am na ci ñoom ñu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sax d'accord nañ ci li nga wax mën nañoo jaamu allah bi nga xam ne moom nga wax ne mooy suñu yàlla mooy suñu borom waaye dañ la doon ñaan buñ ko jaamoo ba pare nag nga ànd ak ñun ñu jaamu Laat ak Uzza jaamu suñu xërëm yooyu nga xam ñu ngi ko samp suñu bër kër yi yàlla na ko déedéet qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu ma ta'buduuna wala antum aabiduuna ma a'budu wala ana aabidun ma abadtum lakum diinukum waliya diin yàlla bañ ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam d'accord ma kenn rek la ñuy jaamu ubudu rabbakum yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko waxal ma waa Màkka ne ko wax leen ne nañ génn ci seen caaxaan yooyu nañ génn ci jaamu leneen loo xam ne du yàlla nañ jaamu ki nga xam ne moo leen bind alladi xalaqakum yàlla mi nga xam ne moo leen créé bind leen def ci yéen ay ruuxa def ci yéen ay tànk def ci yéen ngeen am yëg-yëg bu ngeen di jaamu kooku ngeen war a jaamu jaamu leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind te nekku leen woon dara walam takulu shay'an bu fekkee da ngeen am problème ci loolu yàlla mu ne leen yàlla moo leen bind moo bind seeni papa ak seeni maam avant ñeen di ñëw am na ñeneen ñu fi nekkoon yàllaa leen bindoon alladi xalaqakum walladina min qablikum muy wax ju xóot yàlla di ko wax ak doomu aadama ku jàpp ne doo dee wala yàlla kereewu la moo tax yàlla di la wax ne walladina min qablikum pour nga seet ana sa maam nga ne ko sama maam a ngi nii sama papa ngi nii mu ne la sa maam boobu ana maamam ba maam yi àgg ci Adama kon yàlla mi bindoon ñooñu yóbbu leen su la moo la bind te dana la yóbbu war nga koo gëm ah moo tax yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa waxal waa Màkka ne ko waxal àdduna bi ne leen nañ génn seen caaxaan yi ndax man maa leen bind nañ ma jaamu. comme ni nga xam ne noonu laa bindee woon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te danaa leen yóbbu indi ñeneen même ñoom suñ ma jaamu ñeneen danañ ñëw jaamu ma kon ñoom danañ nañ ma jaamu walladina min qablikum laallakum tattaquun laallakum tattaquun muy wax joo xam ne bu bëri déggin la yàlla mu ne jaamu yàlla gi amaan na nga yaakaar ne da nga am taqwa parce que booy jaamu yàlla jaamu yàlla gi mën na laa sànq naka la lay sànkee ngay jaamu yàlla ba yëg ne yow yaa yàlla wala ngay jaamu yàlla ba yëg ne am nga pouvoir wala ngay jaamu yàlla ba wax ah, mu nekk mu nekk yàlla nee waxtu woo demee ba yaakaar loolu rek ma war na leen a doo dara ah yaakaar rek mu ne jaamul yàlla waaye bul óolu li ngay jaamu ah óolul yaakaar yàlla moo tax Euh, sëriñ bi wax ne Mawlana Cheikh ne kii jaamu yàlla ba yëg boppam ba foog ne mooy lépp mooy fépp mu ne ki nga xam ne dafa mooy yàlla tuub tuub bu bees mu ne kooku moo ko gën a jege yàlla ah parce que kii arrière na ah xam na ne am na borom boo xam ne mooy na ko ñëw na tuub na dellu na ci yàlla waaye kii moom dem na ba yaakaar ne mooy mbir mi ñu ne kële moo ko gën a jege yàlla laallakum tattaquun mu ne la bul gis sa bopp nag ci jaamu yàlla gi yaakaar ah yaakaaral rek ne jaamu googu mën naa tax nga am taqwa waaye bul wax ne am naa ko hmm? yàlla dafay bañ nga wane sa bopp moo tax mu ni la laallakum ah amaan na ci yaakaari yàlla amaan na ci baax yàlla mu boole ma ci ñi nga xam ne ah am nañ taqwa ah yàlla wax na leen maa la bindi jaamu ma nga bañ ut beneen yàlla teg ko yàlla mu ne la danaa la wan ne man nga war a jaamu parce que alladi jaal lakum al arda firashan yàlla mu ne kan moo la defaral suuf mu nekk tëppi nga di ci dox kan moo def loolu kan moo def suuf mu nekk lal suuf lal la boo amee loo ci teg lan la boo amul loo ci teg lan la yàlla mu ne alladi jaala lakum arda firasha ah jaamul yàlla bi nga xam ne moo la defaral suuf mu nekk mu nekk tëpp yi alladi mu lalal la yow doomu aadama pour nga ñëw di ci jaar amul foofu wa samaa wa samaa binaan mu def asamaan mu nekk tant nekk mbaar boo soxlaa sedd muy ni la sedd boo soxlaa tàngoor mu ni la tàngoor moo tax borom xam-xam bi mu ne yàlla rek la ne tàngoor yi ci façon boo xam ne bu ëppoon tuuti rek nga lakk sedd bi timit rek la ne ko façon boo xam ne bu ëppoon li doomu aadama soxla rek mu indil ko problème moo tax yàlla mun na la xoolal ci ki def loolu te ba ma ko defee ba léegi nag. amul ku ñëw ne maa def bu mel nii gisee ku leen timit yàlla yooyu nga xam ne ñi koy jaamu ku taxaw ne yàlla defut man maa def gannaaw keneen oote wu ko nag lu may moom yàlla yónni ay yónantu ñu leeral kon boo amee xel jaamul yàlla boobu noonu wa anzala min as-samaa'i maa'an yàlla amul foofu mu ne la gannaaw gi ma wàccee ndox mu jógee ci asamaan ngay naan mu lay jëmbatal ngay lekk mu lay régler ay problèmes yu bëri yoo xam ne nii sama kattan la sama doole la yàlla mu ngi wax ak xeefeer yi mi ngi wax ñi nga xam ne óoluñ kattanam mi ngi wax ak ñi nga xam ne ngi sikki sakka ci mbir yàlla ne la man yàlla man ma am kattan yi di soo jaamoo keneen ku dul man nag ah perte nga yàlla mu ne ma génnee bii ci suuf si min samaratin min anwaari samarat mboolem kayti kayti meññet yi ma génne la ci suuf ngay lekk ah mu ne wërsëg la risqan yàlla mu ne teraanga la risqan yàlla mu ne may la goo xam ne ah lakum ñeel na leen mi ngi jóge ci yàlla jëm ci yéen ah yàlla mu ne yéen taw la mu leen taw bi robinet bi nga ubbi sax yàlla ne ubbiwoo ko yàlla mu ne la Ousmane si kenn moo amee contact boo xam ne da bés mu xel ndox amut buur lu mu mënu mënu mën naa couper ndox mën naa couper courant waaye Ousmane déedéet ah waaye jant bi déedéet ah waaye ne suuf si génnee meññet yàlla mu ne déedéet kenn xamul fu contact bi nekk yàlla mu ne man maa amee contact yooyu man maa koy bés mu jógee ci Ousmane wàcci ah ma tàggat suuf ah, mu génnee meññet. meññeet yu bëree bari ma def ko teraanga mu ñeel la yow doomu aadama bi loolu yëpp nag ah doyut nga xelu nga ne da ngay jaamu keneen ku dul man yàlla mu ne juum mu ne war ngeen a xelu ay yàlla an daadan ay morom hmm? an daadan ay bokkaale wa antum te yéen taala mu ne da ngeen xam ne yàlla amul morom parce que lim def kenn defagu ko lim def kenn mënu koo def ah fala tajaalu lillaahi andaadan wa antum taalamun ndax ñooñu nga xam ne iblis da na a wor ah ñoo jàppal yàlla ay bokkaale ci anam yu bëree bëri nit mën naa nekk jullit fekk mi ngi bokkaale yàlla te xamu moo tax fi riyaadi tafsir sëriñ bi ne la am na fukk yoo xam ne seytaane war na leen bi ci njëkk mooy xoolal yàlla exemplaire yi ñu la dóoral nga juddu yàlla ne maa sàkk aadama sàkk sa maam sàkk sa papa maa leen wërsëgal maa fi jëlee say maam maa la fi jëlee loolu yépp nga xam ne yàlla la bind te jaamoo ah, ko mu ne man wa lam yaabudu ne yàlla moo bind te jaamoo ko mu ci taalibe iblis yi nga bokk seytaane ah, nax na war na jax-jaxal na mu ne ki nga xam ne xam nga ne yàlla mooy wërsëg yàlla mooy razaq sa wërsëg bu fekkee alal la bu fekkee kër la su fekkee jigéen la su fekkee nomination la su fekkee lu mën a nekk rek gannaaw xam nga ne yàlla moo koy joxe te ba léegi sa xel dalul ah mu yow yaa ngi jaamu seytaane ah parce que waru ci dugal ci bokkut ndax bu fekkee yàlla moo koy joxe boo rafetee rek dana ñëw ah wërsëg boo mëkkee miir te yàlla bëggut mu ñëw ah du agsi wala bu agsee dana la sonal parce que yàlla dana ko jël ci façon boo xam ne nii du la neex moo tax mu ne ki nga xam ne xam na ne yàlla mooy wërsëgal te ba léegi dalal kalam kooku iblis lay jaw ñetteel bi mu ne ki nga xam ne xam na ne adduna daf lay wor a adduniyaa faaniyatu ah luy jeex la ba pare yow nga ñëw wéeru ci moom nga xam ne miir baa ngi waaj daanu xar na mi ngi fett léegi mu waat nga ñëw wéeru ci sa mu ne kooku ba léegi Iblis nax na ko ci taalibe Iblis yi la bokk parce que adduna bi jeex na ba pare ñu ngi koy xamee mooy misaal bi njëkk a dóor ah dund bi yàggatul kon lu tax ngay wéeru ci adduna boo wéeru ci adduna rek seytaane war na la ak ki nga xam ne am na ne lim fi amee ci àdduna ci wërsëg bu dee ay noonam ñoo koy donn ba pare mu leen di dajalal alal boobu yàlla nee na am na ci seen i njaboot am na ci seeni i jabar ñoo xam ne seeni i noon lañ ah ñu ne ko loolu mu nekkee yow yàlla moo ne nga ittewoo leen ba ba bàyyi xàq yàlla nga gën leen a fonk ba bàyyi xàq yàlla yàlla mu ne bu la leerale nag ne li nga am ci àdduna bi ñi koy doon ëllëg say noonu lañ ah mu ne ba pare ngay dajalee xaalis boobu ngay dajale alal boobu defoo ci lu baax waxoo ci lu baax mu ne ba léegi yaa ngi bokk ci taalib iblis yi nga xam ne iblis war nga leen ndax na leen ak ki nga xam ne xam na ne tey dana ñëw te préparé yu ko dara ah yow xam nga ne da dem ah qul inna mow mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum dee boobu ngeen di daw ah mi ngi dox ñëw ci yéen ah fa innahu mulaaqikum daal fokk da nga dajeeg moom te yow préparé loo ko dara mu ne ku xalaatu ci loolu seytaane war na ko mu ne wa ay xanaa bu ñu waxee óolu bokkut ak xam koo xam ne óolu nga. ne sa kër gu mag mooy sa xabru parce que kër yi am ñii du kër kër gi dëgg-dëgg gi yàlla wax mooy xabru ba ah ñu julli la ay rakka rek ñu yëkkati la yóbbu la ci xabru bi mu ne koo xam ne óolu nga ne danga dugg ci xabru bi te ñëpp óolu nañ ko ndax soo ko óoluwut mooy ne amuloo xel ndax waxtu nekk ñu jël sa waajur ñu jël sa rakk ñu jël sa tante ñu jël sa jabar ñu jël sa doom ah yéen rek dugal ci xabru bi kon loolu dëgg la ah yàlla wax na ne daf leen di bind waaye dafa jël bakkan yi loolu am na gis nañ ko mu ne ku óolu loolu nag te fa nga jëm dafa xoofa dara mu ne kooku ba léegi na nga jàpp ne seytaane mooy sa sëriñ ah, léegi tey booy waa ji dem ci sa kër dang ne nañ dugal lal nañ dugal kilim ndax mu sedd nañ dugal lekk nañ dugal ay teraanga mu ne kër gu mag nga xam ne nag yàgg yàgg dañ fa jëm lan nga fa yóbbu ah lan nga préparé pour mu xaar la foofu mu ne woo man ay xana képp koo xam ne óolu nga ne danga nga dox siraat mooy bumbu sew boobu nga xam ne ci xay bi yàlla la bokk yàlla wax nañu ko tëggam nañ ko yàlla nee na bum boobu siraat moo gën a sew bën bëni pusa te danga ci dox te bakkaar yi bu bëree du la attan te oyofaloo say bakkaar ah oyofaloo sa jëmm ah li nga enu dafa diis ndax doo mën a jéggi mu ne kooku ba léegi su xalaatu ci loolu na xam ne ba léegi seytaane moo ko iblis moo ko omat mu arrière mu ne wa ay xanaa ku óolu ma tey ne yàlla ni yàlla bind na safara pour mbugal fujjaar yi ñi nga xam ne dañoo tooñoon ñi nga xam ne dañoo lekkoon alali peuple bi ñi nga xam ne dañoo sàccoon ñi nga xam ne ah dañoo mbëru woon di rey ndax ay buur lañ ñi nga xam ne ah oyofuluñu woon bi nga xam ne jiite nañ ñaa ñi nga xam ne ah dañoo lekkoon alali jirim yi ah ñi nga xam ne dañoo këppoon kees yi ah ñi nga xam ne ah dañoo tëjlu ay société jàmbur ñi nga xam ne ah dañ joon ah yàq ci suuf fa saadan fil ardi ci njaalaw ci naan ñooñu mooy jaar yi nga xam ne yàlla tëkku na leen ne leen danaa leen dugal ci safara mu ne ku xam ne safara suus am na ba pare ngay jëf-jëf yi ñooñu mu ne ba léegi seytaane moo la mu ne wa man arafa ku xam ne yàlla am na aljanna tajri min taxti al anhaaru nga xam ne yoolu ñeent dana ca daw mu ne ku xam ne yàlla am na aljanna joo xam ne wax nga ne uiddat lil muttaqin préparé naa ko ñi nga xam ne dañoo am taqwa mu ne ku xam ne yàlla am na aljanna boo xam ne nee na fiya ah, maa laa aynun ra'at am na loo xam ne ci biir aljanna bët mësu koo gis ah, ci ay neex-neex ci ay taar wala uzunun samiat ci ay wëy yoo xam ne ak ci ay neex-neex yoo xam ne na nopp mënu koo dégg mu ne aljanna yàlla bu neex boobu ku xam ne yàlla am na ko te sàkkuwoo ko mu ne ba léegi xamal na rek iblis nax na la iblis war na la yow taalibi iblis ni mu ne ba léegi wa man ay qana ku óolu ne Iblis mooy sa noon yow ah waraatekat bi dëgg-dëgg mooy Iblis képp koo xam ne xam nga sa noon te xeexoog moom ah ba léegi sa dund amul njëriñ ah xel woo parce que sa noon bu mag mooy Iblis Iblis mooy seytaane yàlla na inna seytaana lakum aduwwun fattaxizuhu aduwwan innamaa yad'uu xisbahu liyakuunuu min ashaabi sa'iir ah kooku nag moom la sëriñ bi wax mu ne fukk yooyu mooy ñi nga xam ne boo ci duggee rek ah yow seytaane nax na la te seytaane mooy iblis mooy noon bu mag bi moo weddiloo xeebeer yi ba jaamuñu yàlla moo jax-jaxal doomu aadama yi indi yu yàqu yu bëree bëri ba nit ñi gëmatuñ moo tax yàlla yàlla musal ci moom yàlla mu fala tajaalu lillahi andaadan bu leen def yàlla mu am morom yàlla amul morom ndax nit ñi dañuy plan yàlla nag moom dafa wax ne su bëggee amal dara innama yaqulu lahu kun fa yakun ah kun fa yakun yàlla rek moo kam ah moo tax ñooñu di la ndax naan la maa def lii maa wax lii ah yàlla waxewul noonu yàlla ne ne fa yakun man rek maa ko yore te sëriñ bi jàngale na mu ne nit ki lu mu rëy am am maqaama lu mu am am wilaaya kenn amul sañ señ ñëw ci magasin yàlla jël sa caabi ubbi jël lu la neex jox lu la neex ku la koy wax daf lay ndax ah da ngay demande rek nga taxaw ci bunt bi ci buntu yàlla nga ñaan rek yàlla nangul la kon nañ tawxiidal yàlla nañ wéetal yàlla nañ xam ne yàlla rek moom mooy def yàlla rek mooy joxe ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla xam loo xaqiqatu tawxiid yàlla nañu yàlla xam loo xaqiqatu tawxiid yàlla buñ bokkaale yàlla ci zahir yàlla buñ bokkaale yàlla ci baatin wax nañu àjjuma wala nañu yàlla surtout fi imam bi toogee اتقوا الله وانتم مؤمنون بالجنه فرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته يا ربنا يا خالق العوالم كل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا انت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا فاقسم بقهر من علينا جسرا اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وسائر بلاد المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين